ginnaaw ba ko Houston ibbilee ay buntam ajjuma samedi ak dimanche ji salon itinérant de labita Memphis moom moo koy dalal otel Sheraton downtown Memphis fala délégation bi lay war a dem ñaar ak ñetteelu fan ci weeru mai bi jàkkaroo ak doomu senegaal yi nga xamante ni ñoo fay yeewoo te yittewoo dëkkuwaay ci réew ma muy fukk ak juróom-ñaareelu yoon ñuy amal ndaje yu ni mel fii ci Amérique ndaje bi jëwriñ gu ñu dénk wàllum dëkkuwaay gile moo ko uuf te it li nga xamante ni amee nañ ko ci ci ay fent di ay yees yees bari na lool itam. salon yu mel nii dañ koy sawar a am parce que nit ñi fi nekk ci diaspora bi ko ci waxtaanal même wax la. dañu bëgg loo xamante ne ñoo ko moomal seen bopp mais day am toujours day am ay ay ay ay ay problème parce que ñi ngay yaakaar ni mën nañ la dimbali yow sori nga sa dëkk comme ni ko waa ji waxee sànq picc a ngi ci kaw mais xel maa ngi ci suuf dangay bëgg ku la jàppale mais toujours que xaalis bi su demee rek am na fu muy jaar du yegg doo am li nga bëgg léegi moo tax yu mel ni dañ koy sawar muy ñëw ñu ci gis suñu bopp bii paa ñu ngi Aoussol ñu ngi yaakaar vraiment que salon bi roadshow bi nu mu ko doon amee dina am succès bu baax a baax baax au niveau de la diaspora donc man kontaan naa trop ci nu ñu ak accueillir déjà population yi kontaan naa aussi ci organisation bi parce que cette année on travaille avec ACN ACN c'est African euh, Communication Network boo xam ne moo ñu jàppale ci organisation bi te comme noonu nga ko gisee rek c'est impeccable vraiment kontaan nañu trop ñu ngi xaar nit ñu ñëw en masse xool produit yi ñu indil ñu ci mën a jënd ñu jox leen information yoo xam ne nii vraiment moom la soxla pour euh, seen futur investissement au Sénégal. fexe ba ñoom la ñuy xalaat di ko gént mu tee leen nelaw ñu dem ba téye ko seeni yoxo moo gën a yitteel guddi yi BHS di ki nga xamante ni moom mooy partenaire bi partenaire bu officiel lu salon itinérant de l'habitat bile nee na mbébétam mooy doomu Sénégal bu ne bu delloo réew ma mën na ibbi këram dugg dëkk. li nga xam ne ni moo ci ëkk am solo banque de l'habitat on a ce une agence des sénégalais de l'extérieur bu ñu andee document yépp le bureau de sénégalais de l'extérieur ñoo jël relais bi ñoo ubbi compte yi transmettre ko tous les clients avec toutes les informations. ñi nga xam ne ni dañoo bëgg tabax dañ leen di financer comme toujours ñi nga xam ne ni tabaxuñu bëgg a dem ci promoteurs yi dañu dem ci promoteurs yi ñu defal leen ñu ñu soumettre ñu ko ñu financer leen. bon ñi nga xam ne nii évidemment bala nga am crédit il faut nga ubbi compte et on est là pour ça les clients ils peuvent ouvrir mën nañu ubbi compte fii sans pour autant ñu dem ndakaar ba ma nekk Descos bi léegi à chaque fois bu ñu amee sànq yu mel nii muy États-Unis muy France muy Espagne ak fu mu nekk ci àddina bi dañuy def effort pour déplacer wu. déplacer wu pour trois raisons d' abord ñu accompagne ñi nga xamante ne ñoom ñooy promoteurs yi nga xamante ne ñooy promoteur état comme ay SICAP. SNHLM ainsi de suite ak ñi nga xam ne ñooy promoteur privé yore suuf yore ay lotissement war ko échangé ak ñi nga xamante ñoo soxla ay terrain wala ay kër mais également contrôler parce que DSCOS day contrôler au niveau national mais bu li amee laaj na aussi ñu ñëw xool liñ ñu fi def lan la bu dee lu mucc bi ñu encouragé ko bu buñ ci gisee lu ñuy sikk aussi ñu xamal ko nit ñi ñu rectifier ko. balaa lañ leen di am parce que prévention dañuy ñëw pour aar ñi nga xam ñoo war a jënd pour que ëllëg si biir li ñu jënd dina leen mën a jëriñ jëriñ seen i jaboot. Eh, dañu waxoon ak gouvernement wu Sénégal ne leen taxawu immigré yi jot na ndaxte da ngay gis koo xam ne day ñëw liggéey ba sonn am xaalisam yónnee ko famille am ñu ne ko jëndal nañ la kër léeg-léeg ñu dem sax ba filmer këru jàmbur ñëw di la ko woon ñu ne donc gouvernement bi ministère bi nga xam ne moo yor mbiru logement mu santuñu mu ñëw mu ne day ñëw ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy jaay kër yi kër yu wóor suuf su wóor ñoo xam ne ñi ko moom jël nañ ko ba approver nañ ko am nañ droit yi ak titres yi ñu war a am yépp autorisation de construction yi am nañ ko euh, financement bi am nañ ko surtout avec notre sponsor leader la banque de l'habitat du Sénégal ñu ñëw sénégalais yi jënd ci lu wóor jënd ko ci loo xam ne notaire moo koy signé doo dem ba ñibbi liggéey ba yaakaar ne ñibbi Sénégal jot na wala nga am soxna wala nga am borom kër wut foo koy dugal ñu naa la kër gi dafa pare wul dafa def néeg yu demee noonu loolu moo tax ñu doon ko def moo tax ñu ñëwaat léegi nii euh, def ko ñoo ngi nii tey ji ci yu son di di di tàmbali 28 29 ak 30 avril bi bu ñu fi jógee le 2 ak le 3 ñoo ngi Memphis ci Sheraton downtown bi nekk Memphis bu ñu fa jógee door a daaneeli New York xam nga New York moom mënee su ko teggi road show bi New York lañ koy tëjee New York ci hôtel Hilton bi nekkee ca Midtown fi ñuy wax sixième avenue ak cinquante troisième rue la fare foofule juróom benn fan ak juróom ñaari fan ci weeru mai bi lañ fay amal ndaje bu dox ci diggante ñi yombalal kër yi ak terrain yi ak doomu senegal yi nekkee ci diaspora bi fii ci Amérique ndaje boobule ki nga xamante ni moom mooy jëwriñ gu ñu dénk wàllum urbanisme logement ak hygiène publique maanaam wàllum dëkk ak dëkkuwaay de Abdoulaye Seydou Sow dina ko teewe